ak ngërëm ñeel na leen mbokk internet yi saa su ne ñuy ànd ak yéen ci minute de buzz à travers xibaar ci VHD ñu daal di leen di wax rek li nga xamante ni moo gën fës ki nga xamante ni moom moo di Siteu borom Turkinda moom Siteu naka doomi géejawaay bi naka daal di nay avertir wala naam alerté ki nga xamante ni rek moom moo di buur géwél ci li nga xamante ni rek moom moo jëm ci bile lamb ci diggante ma ki nga xamante ni rek moom moo di euh, euh, le roi des arènes mu di Modou Xarañ la Siteu naka mi ngi xamal ki nga xamante ni rek moom moo di buur géwél ak fadam dama leen di daal di interdire taqal seen tànk fi nga xamante ne rek moom moo di di mer ba futtu ci kat yooyu di leen ko daal di toppal mu ni rek jamono gi ki nga xamante rek moom moo di uh, jàmm gën ba ne buur ak fadam duñ fa daal di uh, ki nga xamante rek moo di buur géwél ne ko duma la jéggalu ndaxte fi nga xamante moom moo di uh, foofee nga xamante moo di ci diwaanu jàmm gën ak aux alentours moom moo ko tey moomoo ko ëllëg mu mel ne rek jamono gi moom borom curkindaa gi daa fas yéene jàkkarloo ki nga moo ba 26 na jamono gi Siteu ngay bàkk lu neex waaye Modou Lo nag nee na ko jamono gi ngala na ndaxte kat man maay di yor mu mel ne rek jamono gi ñoom ñaar foo sànni mbàtt mu toj li coow li bari bari à travers minute de buzz gannaaw bi nga xamante ne nag tek tekkaaral gi yàgg na ci doomi Jóob Isaac bi nga xamante ne rek moom moo di Abiba Abiba nag jamono gi daal dinay génn ci loolee nga xam ne rek moom moo di silence boobee nga xamante ne rek un bail mi ngi ci moom Abiba nag daal di def ab vidéo à travers li nga xamante ne rek moo di yenn site internet yi nag nee na jamono gi nag ñenn ci sit internet yi ak ñenn ñi nga xamante ne moo di les soi-disant influenceurs noonu la ko waxee nee na kat dañoo jug rek pour fas yéene dakkal li nga xamante ne moo di carrière musicale am dem sax ba naan Abiba nag léegi bokkatul ci seen musicale am Abiba bàyyi na way nee na nag moom bàyyiwul woy tey bàyyiwul woy suba nee na neuf ans la def li tax mu muur nag nee na ci wàllum spirituel ci wàllum consentement ci wàllum gëm-gëm loolu moom la keneen bokk ci kon lan moo waral ñu daal di koy toog di ko ngawti ngawtee ñii naan Abiba bàyyi na way ñi naan Abiba bàyyiwul way waaye mu mel ne rek jamono gi moom euh, doomi Diop nga xamante euh, li nga xamante ne rek moom moo di cofeelam ci carrière am ba tax mi ngi promettre lu doy waar ci ñi nga xamante ni moom moo di fansam rawatina jamono gi ñi nga xamante ne rek moom moo di actrice yi ak célébrité yi nga xamante rek dañoo daal di jël li nga xamante rek moom moo di voile à travers li nga xamante mooy internet bi ba ñu jugee ci Abiba dañuy gis ne Ndeye Ndack moom jamono gi nag am na boroom kër tamit dafa daal di voilé wu Fatou Lawbe da même itam ma nga daal di voilé wu Faynara itam da même Mbéri Bey bu te télévision Futur Média itam ñoom ñëpp dañoo daal di voilé wu jamono gi ñuy gis beneen facette bu bees di gis beneen xar kanam bu yees ci li nga xamante ne rek moom moo jëm ci mode beeg tendance bi ki nga xamante ni rek moom moo di Zarko doomu uh, Grand Yoff nag la ñuy daal di xamal ne rek ne jamono gi nag yoon uh, da ko uh, daal di teg loxo ñu ñuy xamal ne ki nga xamante ni sax moom moo di Zarko fait partie des 77 yooyee nga xamante ni rek membre ñu ñu jàpp ci ay garde rapproché ci coalition sàmm sa kàddu loolu lañ daal di xamal xamaguñu nag ndax mbir mi am na waaye ñu ñuy daal di xamal ne rek ñi nga xamante ne jàpp nañ leen ci bile mbir ñu topp ci topp ci 77 personnes ñu ngi leen di li ñu daal di toppee nag dara lu dul violence jàppale ci li nga xamante ne rek moom moo jëm ci yenn destruction yooyu nga xamante ne rek yàqu-yàqu am na fa ca diwaanu foofee nga xam ne rek moo di ndar ak détention arme illégale ak violation d'un intérêt ministériel nag loolu lañ leen daal di toppee Walf Net di ko daal di xamal boo def taf si ki nga xamante moom moo di photo Zarko nag à la une ñenn ñi nag nee na loolu amul ndaxte Zarko mi ngi ci diwaanu foofee nga xamante ne moo di Maroc di waajal xamante ni rek moom moo di Zarko mu génn daal di leeral li ni mel am rek da ciy baax ñu daal di leeral li ni mel ndaxte kat jamono gi ñëpp ngi yëy di yàbbi ci Zarko rawatina li nga xamante ne rek moom moo daal di am ci li nga xamante ne rek coow li coow li bari na lool ci diggante aada Fass ak ki nga xamante ne rek moom moo di euh, promoteur bi nga xamante ne rek moom moo di Aziz Ndiaye mu mel ne rek ñoom ñaar daal dinañuy juboo Aziz Ndiaye nee ki nga xamante ne moom moo di Ada fa daal di ñëw toog foofee nga xamante ne moo Ada Fass moo daal di ñëw fi nga xamante ni rek moom moo di këram foofu nag nee na Ada Fass moo ñëw këram rek ne ko damaa bëgg a ki nga xamante ni rek moom moo di Liss Ndiago nee na nag Ada Fass ñoom wariwuñ ko Ada Fass moo leen di wër te Ada mënu ko démentir ndaxte vidéo euh, yaa nga fa waaye itam mu mel ni tey ñoom ñaar juboo nañ Ada Fass seeti na ki nga xamante ni rek moom moo di Aziz Ndiaye ñoom ñaar consentement daal di dox seen bës ah, ci diggante li nga xamante ni rek bi le combat à travers minute de buzz mu nekk nag mbir moo xamante ne foo sànni mbàtt mu toj askanu Sénégal ñëpp di ko waxtaan waxtaanee moom mbër mi nga xamante ne rek moom moo di Ada Fass ak ki nga xamante ni rek moom moo di Aziz Ndiaye jamono gi jàmm daal dinay doxaat seen diggante coow laa noonu ci diggante maman vulgaire ak ña nga xamante ne rek ñoom ñooy moodu moodu yeeg faatu faatu ci diwaanu bitim réew bokk ci moom natt nag moom maman vulgaire jamono gi nag coow daal di koy topp Adamo ne ko da koy live ñu ne ko déet waaye à travers minute de buzz Adamo ñu ne maman vulgaire koppuru nit ñi la jëlee di dem Chine di dem Dubaï di dem Turquie wala sax di dem foofee nga xamante ne mooy ci diwaanu moom moo di bile coow mu mel ne ki nga xamante rek moom moo di maman vulgaire nag daal dinay génn mer bu futtu ne na nag moom bu demee tukki nag daa am ku ko abal xaas mu tukki te loolu yàgg na nee na nag bu weesoo loolu képp ku bokk ci natt bi nag te nattoo ni mu topp ba fu mbaxane doonee benn moom maman Vulgaire nee na nañu taf photo yaayam taf photo papaam taf photo jëkkëram ak i ay doomam waaye kooku du laar yota nee na nag mi nga xam ne da koy laayival bu ko yàq dootu ko defati mu mel ne jamono gii géemu natt gi nag doora ci na lool fi nga xamante ne mooy ca internet ba ah, foo sànni mbàtt mu toj ñoom ñëpp ñu koy daal di waxtaanee seen biir ak lu ci munti am jéggi na dayo Mame Ndiaye Savon ca wet ba daal di taf photo ki nga xamante ne rek moom moo di maman Vulgaire di ko défendre naan ko doxalal bul gestu bu leen faale ndaxte Sénégal kuy dem la a revenu de base maman vulgaire ma ngay fëgg na dem moom maman ma ngay xamle nag nee na daw ci yotaa pousse ci passe ci gel bi moo natt ba mu neex ko mu daal bàyyi dak ne dootul nattati mu ne ko nag bu dee man ak man sa koppar ay yotaa doo ko ci daal di yot mu nekk mbir bu jig dayo boo xamante jamono gi nag ak lu ci mënti am ca internet ba maman vulgaire ma ngi cay daal di sab sàpp marichou de retour marichou bu bili marichou bu podee marichou daal di nay réapparaître nag jamono gi ñu daal di gis ak Cardi bi boobu nga xamante muy def it gannaaw bu mu accouché doom bu góor ça fait un bail Marichou di féete li nga xamante ni rek moom moo di anniversaire en mode américaine def shooting bu it boo xamante ne en ce moment à travers internet bi ñëpp nga koy daal di waxtaanee xibaar TV HD di ko fësal ci design bi ak feeling bi nga xamante ne rek moom Marichou daal dina koy am foosaani mbàtt mu toj ñëpp di waxtaanee sañse bi nga xamante ne rek Marichou moom daal dina koy euh, sañse huitième jour déjà yado bi mu génnee àdduna ba léegi ki nga xamante ni rek moom moo di yaayam ma ngay wéy di ko jooy ba léegi mu mel ni rek mi ngi xamante ne ba mu ñàkkee yado ba léegi nag doon na mbir boo xamante ne tristesse lañ ci gis ci yaayu yado waaye ak lu ci mënti am rek ki nga xamante ne moom moo di yaayu yado nag jamono gi mi ngi am li nga xamante ne rek moom moo di xol bu metti ci ñàkkum doomam boobee nga xamante ne rek génn na àdduna mu nekk loo xamante ne Xibaar TV HD du jug saa s nekk rek di ko bàyyi xel te di ko ko jaale ba tax na rek à travers minute de buzz ñu ngi koy ñaanal suñu borom may ko xolub muñ waaye itam daw si doon këram lii moo gënoon fës ci li nga xamante ne moo di minute de buzz waaye li coow li bari bari bu leen fàttali 24 novembre Siteu Modou Lo lu nara a doy waar